doo ko mën a jaay ci biir kon yaa nangu accepté na jëlal waaye léegi ndax application boobu ki ko moom te créé ko ndax amul ci xam-xam bu toll na yow loo ci def même boo ko génnee moom bi ci des aha kay soo xoolee lu bari privé nit ñi ak bii privé nit ñi léegi yépp da nga gis ne dañ koy génnee ci portable yi ndax saa boo xoolee suñu génération bi saa yoo jël 90 yoo jàpp ne portable moom bu dee Facebook la boo supprimé dañ dañ na déedéet boo ko placé woon raxas ko ba mu set sax am na ci ñoo xam ne boo leen ko joxee ñu génnewaat mboolem image ba ci mas a jaar donte téléphone da na ci application boo xam ne boo ko ci defee lu téléphone bi mas a def ci lu baax wala lu bon da koy génnewaat am na ci ñoo xam ne jàpp nañ nag boo xam xasee supprimer dem stock mémoire téléphone bi set na déedéet ñu baree baree bari seen àdduna yàq na loolu ci jukko yi yàq yi ba léegi fii ci Sénégal nga nekk jigéen jàng ba am ay diplôme am xam-xam mané jité réew mi bëgg liggéey ci bénn télé wala bénn rajo pour nga liggéey ci dañ lay santas ñu tuddee ko promotion canapé ngir nga réussir faawu jàpp ne da ngaa war a nekk di waaye romb nañ fofu fi ci Sénégal suñu tak der yi def rafol di ramaas di ramaas di japp nga japp xalé bu jigen bo xam lay war am nga japp police yi japp ko mu taxaw génne benn carte ñu ne ko pardon mademoiselle yow valable nga mën ngaa taxaw ba fajar benn kayit bi wan ne yow mën ngaa taxaw di jaay sa bopp ba fajar bu dee góor moom laissez passer la am ko neex na dafa dem ñu jàpp na loolu ñu daan ci mucc déedéet duñ ci mucc mukk ndax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar yéen xeet Seydina Mohamed yéen a gën mbooleem lu ma ma sàkk waaye ñun jullit lan mooy tax ñuy gën keneen mooy dañuy digle lu baax di tere safaan ba Seydina Omar ibnul Xataab daa waxoon ne dara defar mbirum ñi mujj ci xeet wi lu dul la defaroon mbirum ña mujj ci xeet wax la defaroon mbirum ñi njëkk ñi rek mooy defar mbirum ña mujj ña waaye boo xoolee lii yàq ju koy lu ci baree bari dafay jógewaat wàcc suñu biir xam nga bu yëgul dara bi télé yi sax bëreegul noonu yaa ngi jàpp télé bu ñu RTS RTS teg benn théâtre bo xamné élément ilimaan ji day kar xali yu ñu té ko bàyyi ili da koy téré ngay sétane di rétane rek yow bo sétane paré pare dugg ci jakk ci buna na allah ko bar sa xel dem ci théâtre ba nga ñaaw ndar sa xel yàq su julli baxut lool lañu ñu al khasul fikri asaxaafi araxsa al gharbi moy force négative bu bon bobu nga xamné occidentaux yi dañ koy mané ngir wéñ suñu loxo ndax xamnañ né l'islam niñ ko mëna fexe ba gaañ leen mooy nañ fexe ba xale yi duñ amati kilifa kilifteef jeex ñu tekkiwul dara léegi ñoom lañ teg ci télévision yi ñu jàpp ne ñii ñoo war defar société bi ñii ñooy moment Y'en a marre Y'en a marre lu muy tekki boo sonnee da ngay noppali ji 23 nga ju maanaam yu kenn xamul loolu lañ kere teg leen ko nga xam ne dégg gis naa ci benn waaye boo xam ne ñi ngi ko wooyee foo malaat ñu tek ko ci télé bi nga xamné ne Youssou Ndour boo mom moom mu né doom joji nga xamné dafa judi ci or mariage dafa wara dond mom mom gis-gis bobu la am ba paré ñi bari di diko jox bop mom nga xamné ne xamul ci diiné dara xamul ci islam dara faté ju mok sax boy mutu munuko ko nga xamné kon ñoñu lañu déglu ngir ñom ñu war ñoo jox ñu né exemple ñom kon ñun fan lañ dem nga xamné ñi nga xamné ñom ñoo wara la kenn xamut ñom ñoo joxé ay bon exemple ñom te ñooñu kon ni koy xool ci ñoom rek am na scénario boo xam ne yow suñu la ko tegaloon yow nga xeeb ko léegi ñoom ñoo ñëw di joxe nag ay exemple ci biir nit ñi ku dàq way dàq fecc dàq nekk ci loo xam ne dañ koy wooye star tey bu ñëwoon suñu dëkk bii di tubaa sax ngir mu gis sëñ Sidi moo sëñ sëñ Muntaxa mi ngir mu gis ko c'est facile waaye yow imaamu jàkk bi yow sëriñ daar bi boo demoon bëgg mënoo koo gis loolu lépp na dafay dugg ci wàllu complexe fañ la commencé xolal xalé bi nekk ci école bi di góorgóorlu di jang kayé bi mi jang sax dañ def mbërum lamb lañ ci def kayé bi mi yor di jang am mbërum lamb lañ def ci kayé bi xolal li ñuy yàq ci bop xalé bi xam nañ ne ëllëg pour nga tek dara kon ci Sénégal ba bara mëna nekk ci kayé da ngay nekk footballeur wala nga nekk mbërum lamb lolu dafa nekk ay yu sew sew yo xamne ne ci xel dara nga demaat ci réewi naar yi nga xamne ñom ñoo ñu di ay julit nga jàng alcorane ba man ko def majalis jàng arab jàng lu ko xosab yi ba dégg arab nga dem ci naar yi di làkk arab ñaan la iskay anta taqara alquran di la la iskay anta taqara la ree ñoom naar yi ngir seen daara jiyee bu tekkiwu dara bi nga xam ne égyptien bi ak sourien bi ak saoudien bi ak tunisien ak sénégalais bu dajee woon ñoom ñëpp di làkk arab duñu déggante ñàkk gi ñàkk gee bennoo ñàkk gi ñàkk boole seeni bopp yu ci bare bare bare bare bare bare di ci xew lislaam tooñut kenn ta borom bi subhanahu wa taala wax na ci aaya alxuraan ñetti aaya bo xam te ne yépp ci wén sar lañ nek wa man lam yahkum bima anta allah fa ulaayikumul faasiquun ulaayikum saalim ulaayikumul kaafiruun ñett bii tooñkat bii yéefar bi bi nafiq kon ñun dañu bàyyi li ñi yàlla andi won tegal nuko ndax fekkon na tay gor gor lañ def ay effort yu tuuti ci li borom subhanahu wa taala teunk ñun dañu dem waye malgré lool amul tubaab yi ñu jël tek leen beut

maa wàccee maakay koy wattu maay kunne di ko wattu ba saa di taxaw kenn mënu cee yokk dara kenn mënu cee wàññi dara alif bu ci dañeen xale bi gën a ndaw mën na la ko wax waaye nag alxuraan boo doon xool ci réew yi jullit yi dafay mel ni alxuraan day ab gaaraas rek maanaam réew yi day ab garaas alxuraan ne cëpp ñu importé ko mu jàll beneen beneen dëkk amuñu ci benn dégg-dégg jéemuñ ci dara ñi jiite suñ réew mi am ñaari doom jaboote leen benn doom bi moom ci conditions yi baax lay nekk ay bis a koy yóbbu ñu tabaxal ko kër gu baax muy jàng saa bu meree bu génnee réew mi day taxaw day toj bis yi taal tëli bi lépp doom jooju moom la kaw kawal doom ji daara ji moom dañ koo jàppee benn waay kon nu réew mi di amee jàmm muy kii jàng alxuraan ak kiy jàng arab euh, kiy jàng français bee ñu ci def ay centaine de milliards te saa su nekk mun ñu fexe ba mu dip biñ ganee jamono di xàmmee ba léegi dañuy gis ne day am ay problème sa su nek te mosu ko gis ñi nga xam ne ñoo téye réew mi di jang lu baax ñu taxaw leen ci dara waye ñom leen gis ñu genn baari bi ay punu man ka lillahi kana la wulahu waye motax duñ am jam mukk ndax mu nit ki daf koy sakku diko bëgg waye jukko yi nga xam ne mo bëgga dañ mo bëgga effacer wu jaar suñu jitt réew yi tañ xam ko ay manifestation yu tekkul dara lu mat ay fukki bakkan di ci rot ay bakkan yu jullit di bari di tuur di wal doomu adam meuna jël pak di bour jëm ci maramu doomu aadamam te ta te yaramam du daw nga ñew ci xalé yu goor yi génération bees bi da nga gis ñaari xalé yu goor yu nuyu te joxante joxante loxo 30 secondes ñu wax pël ñu wax arabe ñu wax olof dañ ci boole anglais dañ ci boole pël dañ ci boole France dañ ci boole olof ça noo def sinon nice nag xet may sinon cool xamuñu arabe la xamuñu pël la xamuñu france la terme bu ne dañ ko ciy boole nga xam ne tey ji jiite réew mi sax ku doon wax benn kàddu ci français benn terme ba juum rek da ngay jàpp def nga lu garaaw yow yow nga juddi ci wolof nàmp ci wolof réew mi loo wax ci wolof ñu dégg ko te boo juman ci wolof moom pour ñun garaawut benn fër ci français addina bëpp di bëgg ray seen bop kon ñun complexe ñun duñu mas avance am réew mënta avance ci lakku jambour ta toba bi ñoom sak sour ñom seen bop lañu gëm dafa am benn toba bu ñax Thomas Robel maltis ak benn toba bu ñax Bernard Lewis ak beneen toba bu ñax Robel Madra dañu dabee dañu ñom ñett ñoo dañu dajé ci kër ci 2007 ci 1895 lañu dajé kër 2000 ñu dajé Nairobi Nairobi 2002 ñu dajee New York 2005 ñu dajee New York keroog bi ñu dajee xam nga Rome Thomas Robert Malthus lan la wax jullit ñi nañ leen fexe mel nañu ay njaay àll nañ fexe ba soppi seen i jikko daal di jëfandikoo benn kàdd bu garaaw garaaw daal di wax ne sax bu naa moominun muafisun mutadayyinun an sajjaha inal fil mutaban xayri yahudiya daal ne jullit ñi nañ fexe ba buñ gëmati lara luy bàyyikoo ci Seydina Mohamed buñ paree ci ñoom nañ leen fexe bañ doon ay mala nañ fexe bañ doon ay mala baat boobu la jëfandikoo Bernard Louis moom daf ne julli ñi ñoog ay ak ñoog ay njaay àll benn lañ loolu moom baat boobu la jëfandikoo ndax la wax na sax baat bu garaaw boo xam ëpp naa wax dem na sax ba ne ñoom dañoo mën a jur ba mel ne ay mala ca lañ créé li ñu tuddee limitation de limitation de naissance benn tubaab bu ñuy wax Thomas Robert Malthus moom moo ko créé waaw nga xool yooyu yëpp ñu ñu indil ak politique bu salte bi suñu njiiti réew yi di def ci jukko yu salte yooyu yenn ñu koy jaar ci sir sariyem bi def jigéen ñi toll ci diggante ngir di wàññi seen butit njurukaay rien que ngir éliminer l'islam l'islam mooy li rafet mooy li baax moo boole mboolem valeur yi nekk ci biir yépp ndax fa man tabiu dee fa laa yudil wala yasqa wa man axarada an sikri fa lahu maysatan danka wa naxduru yowma alqiyamati ahma képp koo xam ne dangaa topp sama njub gi doo réer doo sànku waye kep ko xamne borom subhanahu wa taala neena lolay war nga ko ginnaaw allah yawmal khiyam sa boy dekk da ngay gumba kon julit bi lu mën xew nay jëf lu bax nay wax lu bax nay fexe bay am ay jukko yu rafet ndax nag may yakhshu an sikri rahmaani nuqayyid lahu shaytan fa huwa lahu qariinu kon da fay melni ñi ngi jinjju ne waxtu wi dafa jot lu ci jub borom bi la lu ci dëng man la wa aaxiru da'waanaa ani alhamdulillahi rabbil alamin